Bassirou Mbacke Abdou Khadre mi nga xam ne moo yor kàddu yoonu murit nag bi nga xam ne doon na fësal liggéey yi nga xam ne war naa am ci màggalu Touba atum 2019 nag yëkkati na itte ju ko ci inauguration jumaay Masaalikul Jinaan gi ca Ndakaaru muy jàkk yoo xam ne lu di àll taalibe Sëriñ Touba loolu itam di ndamaat kon xew-xew boobu xew-xew bu tuuti ci lislaam xew-xew bu tuuti moom porte parole bi di fësal nag farlu waaye taxawaay bi nga xam ne nii fas yéene nañu koo am ci ubbiteel joojule juma moom sëriñ Bassirou Mbacke di fësal ne liggéey yooyu lee buñ ko am mën na ci taxawaay bu mat sëkk tey tam sax moom moom lee moom mooy jiite lépp lu nga xamante ni jëm na ci li nga xam ne moom inauguration boobule ak li ci aju moom sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadr di fësal ne juma joojulee ndam la lu rëy loo xam ne nii l'islam am na ko ci biir àdduna bi waaye tam ci réew mi di Sénégal moom porte parole bi di fësal ne ci ubbite ga moom sëriñ Muntaxa Bassirou Mbacké mooy jugal boppam dem ci Masaalikul Jinaan ngir daal di koy ubbi mu fësal tam ne mbooleem njabootu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba fa teew ak itam yenn yoo xam ne ni ñu ngi ci àdduna bi ñu fas yéene leen invité ñu fas yéene ñëw foofale ca Jinaan ngir teewee li nga xam ne moom moo de boobu le bis. waaye ci li ci jàppalul rek mooy dimanche le 22 septembre ci la Serigne Bour ak ci biir loolu nag am na ay conférence yu bari yoo xam ne ñoom waajal nañ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 te ka ci jiitu di Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu lu ëpp ñaar fukki milliards nag ci suñuy koppar def nañu ko ci joojule juma ki nga xam ne ni nag moom moo tàmbali woon boobu li liggéey di Serigne Saliou Mbacké Serigne ñëw fedd liggéey bi waaye itam euh, Serigne gën koo jox yitte ba tey ji Serigne Mountakha Bassirou Mbacké fas yéene koo daloo yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak